وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon ñu ngi war a jël tey aya 172 ci suratu Ali Imran fi suñu borom jalla wa ala di waxe allazina stajabu lillahi war rasul ci page 72 bi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam ngëre fas yéene jàng ab téeréem ab jullit heure bu demee ci daje yooyu mu jéemi def ihtisaab te mooy sakku suñu boroom jagleel ko la ko ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégale yonent boobu doon wax ni majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llah yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyatuhum alrahma wa xafathum almalaika wa zakarahum allahu fi man inda mbooloo du daje mukk ci néegu boroom ba ñu jël téere boroom bi di ko jàng ci seen biir lu dul suñu boroom wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe yëkka jege yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi mboolem ñi nga xam ne nii it ñoo koy nar a déglu ca teewuñu ak lu leen tax a ñàkk teew yal na yàlla barkeel ko am na ca ñoo xam ne dañoo sori bitim réew am na ci ñoo xam ne dañoo jagadi te it ci biir ñooñu ñuy bañ a fàtte it kenn ci magu jàkk ji ci ilimaanu jàkk ji ñu ngi koy tudde Serigne Mbacke Ndiaye mooy paa bi daan bëri toog sama gannaaw nii di kaalawu gis nañu ne ay wéere ngi yàlla natt na ko ci feebar bu mun la teew ci jàkk ji yal na yàlla saafara ko barkeel ko mboolem ku nekk ci feebar wala ci tukki it yal na yàlla xettali leen ca boole ñu ak ñoom aw yiw adduna ak alaxira tey jii mooy ñetteelu fan ci weeru rajab ci 1444 weeru rajab mooy ci bokk na ci weer yi ñu war maal allahuma lu dul ñi fekkee waxtaan yi ñu def fan yi passé fàttali nañ ci ne amul benn jaamu yàlla boo xam ne jullit da ko war a def ci biir weer bi mu wér ne yonent bi alayhi salaam moo ko jàngale na am xadis na am lu ëpp fukki xadis rot na ci waaye xadis yooyu mbokk dara wéru ci gannaaw xadis it lu ni nit ñi créé nañ ko tey rek am na ko ma yónnee benn audio di ma laaj lu ma ci xalaat benn waay bu dëgër fit nee na boo weeru rajab bi soo jëlee kaasu ndox teg ko daal di julli ñaari rakka ba pare nga tiim kaas bi jàng ci malik yawmi din malik yawmi din cent fois soo ko naanee mboolem sa feebaru yaram wér na mboolem say soxla faju na min ayna laka haza fan la fan la fan la dere loolu almuhim mbokk daal ci gàttal xam leen ne rajab amul lenn lu wér luñ ne lii kenn waru ko tee def amul lenn lu wér luñ ne lii dañ ko tee war a def mu jóge ci yonent bi nga xam ne moom dong nga am droit jàngale luy jëriñ ci diine ji yàlla nañu yàlla déppale akum njàngaleem kon mbokk mi ngi noonu ñu bàyyi ak Cheikh Ali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرمني الذين استجابوا لله ورسول ñooñu nga xam ne ñoo wuy si ñeel yàlla ak yonente ba min baadi ma asaabahum alqarx gannaaw bam leen dalee jam jam ya gaañu gaañu ya lillazina ahsanu minhum wattaqaw dana ñeel ñay rafetal ci ñoom ca ragal yàlla day ajrun azim yool boo xam ne bu màgg lay doon allazina qaala lahum nnaas ñooñu nga xam ne nit ñi dañ leen a wax ne inna naasa qad jama'u lakum faxshawhum nit ñi day ay mooy yéefér ya dajaloo nañ ñeel leen ragal leen leen fa zaadahum imaana waaye loolu dolli leen ngëm wa qaalu xasbuna allahu wa ni'ma alwakil ñu ne ñun de yàlla doy nañu te doy na ku ñuy wakkirloo mbokk julit ñu ngi wéy ba tey ci jamono ji gën a tar gu yonent bi ak sahabaam dund ci madina ci fan yi gën a triste gu yonent bi ak sahabaam dund ci madina yàlla dogal na yéefér yi dajaloo nañu jóge makka ñëw madina nekk ñetti junniy xeexkat yonent bi dajale ay troubam yépp amul lu dul junniy xeexkat ñu fas yéene daje ak ñoom bañ demee ba ca yoon ba abdullah ibnu ubay kilifa nay fiq ya convaincre ceeru armée ba ñu dëpp ànd ak moom ñetti téeméer ànd ak moom yonent bi des ko juróom-ñaari téeméer bañ demee ci gàttal yàlla dogal na yéeféer yi am ngañaay ci seen kaw rey daanaka dixième armée bi sept cent la ñu woon ñu rey ci soixante dix daanaka dixième armée bi yonent bi ak sahabaam bàyyi nañ ko ca Uhud seen i jegeñaale seen i xarit seen i doom seen i ilaaxiri ñaata blessé kenn xamu ko loolee nekk lu tiis lool guddi googee ñu fanaan ca biir Madina ba ñu xëyee sallallahu alayhi wa sallam fekk damm nañ bëñam ba toj nam jéyam ba gaañu gaañu yu tar yoo xam ne nii toute une journée mi ngi nekk di ko xeex sallallahu alayhi wa sallam ba muy jiite fajar daa toog mënul taxaw ngir loolu waaye gannaaw ba ñu dégg xabaar ne kat waa makka ba ñuy demee ñoom abu sufyan jinne bi dañoo dem macco yoon bi ñu ne mais ñun daal ñun daal ñun ñoo ñàkk fayda mais ñii gañe nañ leen ba ñu néew doole lu tee ñu dem faagaagal leen maasale leen ñu ne ñun nañ dëpp dellu ci loolu mais loolu amee am benn waay daa di yëg xabaar bi ñëw ci yonent bi alayhi salaam wax ko ko nañ ibnu masud ne ko kat abu sufyan ak armée makka neen li ñu bëgg a dellu siwaat biir madina ngir xeex ak yéen yonent bi alayhi salaatu salaam ne bilal noddal bilal da daan nodd ngir woote julli da daan woote ngir rassemblement heure bu ñu ma saan dégg noddu bilal te du waxtu julli dañuy xam ne lii mooy rassemblement lu tax mooy yonent bi du woote lu dul loo xam ne yiw moo ci nekk sahaaba yépp dégg nodd gi ñëw biñ ñëwee yonent bi alayhi salaam ne leen waa makka day nee nañ dañoo bëgg a dellu soit madina ñun nag ñooy dem daje ak ñoom waaye ku ñëwul woon démb ci xeexu uhud bi bu mu ma topp ñi ñëwoon dong laa wax ñu ñu topp ma keneen ku ci bokkuloon du ma topp ba dañ naan ki nga xam ne mooy jaabir ibn abdullah nga xam ne bàyyam dañ ko ree ci xare ba moo ñëw ci yonente bi alayhi salaam da koy yumi yàlla yónni sama bàyyi de bi muy dem daf ma bàyyi woon ak njaboot gi man ku bëggoon génn laa yàlla dogal nañu rey ko may ma ma ànd ak yéen yonente bi ci jàkk ji mu ne may naa la waaye bu ma keneen ñaan keneen ku dul jaabir bu mu ñu topp loolu bi mu wootee mbokk moom la borom bi di wax sahaaba yi ñëw istajaabu li rabbihim min baadi ma asabahum alqarx ba sahabatul kiram dañu ne da ngay gis koo xam ni frère am moo ko yenu ngir indi ko ci jàkka ji munul doxal boppam waaye yonent bi woote na frère am moo ko yenu indi ko ci jàkka ji loolu mbokk buñ koy jàng dañu war a am kersa mbokk diine yi lislaam ji loo ci war a def da nga ko war a xeeb da ngay yeewu nangami guddeeg da ngay koor nangam ak da ngay joxe alal ak lu mu mën a doon da nga ko war a xeeb xam ne sahabatul kiram kenn mënu leen a dab léegi nag nga xool boo ko comparé ak ñi nga xam ni yàlla day woote mbokk suñu borom mu ne istajaabu lillah yonent bi moo woote mais yàlla moo ko jox ndigal tey bilaal bi nekk ci jàkka ji daa di ne ay nit ñi allahu akbar mi ngi woote ci turu yàlla convocation boo xam ne turu yàlla la seede yàlla kenn la muhammad yonent yàlla la kaay leen ci julli gi kaay leen ci texe gi yow yàqulu la sa match de football wallahi waxuma barki démb wala démb waaye bisab tey bi tey bii rek am na benn soxna su baax yal na yàlla barkel ko barkel soxna yépp mi ngi diisoo ak man ci naqar mu am ci borom këram ndax jàkk ji presque ñoo jàkkarloo waaye dañuy nekk ci julli borom ca jàkk ji julli moom mi ngi seetaan footballam gis ngeen dañuy nekk ci jàkk ji du julli mu ngi tëdd di nelaw ba heure bu ko neexee loolee mbokk da ngay gis ba pare yow nga ne jullit nga kooku bu ñu woote woon jihaad nooy def su ko defee borom bi mu ne ñii day li leen dal ci métit yépp teewul istajabu lillahi wala rasul borom bi nag ne ña nga xam ne dañuy sellal ci ñoom te it mbokk dem jihaad taxut a texe de ndax bari na ko dem jihaad yeneen intérêt ko yóbbu mooy mer mu mer bëgg ñu ne jàmbaar la kon la tax ngay jihaad yàlla gërëm la li takuna kalimatullahi al ulya mooy sellal ci yàlla tax waaye it moytu bakkaar yi lan moo tax ñu gëni leen démb te uhud mooy bañ a jëflante ak ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñoom échec moo tax borom bi ne ñooñu ñëw ak rafetal ànd ak ragal yàlla pay yu màgg mi ngi leen di xaar te mbokk sahabatul kiram kenn mënu leen dab ci pay yàlla waay gëmal loolu yow sëñ caam yi fonk sab sëriñ sab sëriñ demal naa baax waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ay yenn sahaaba yi mujj a tuub ñëw ànd ak man jihaad ànd ak man lépp kenn ci yéen bu soxla bu sarxe woon montagne uhud ci or du mën a dab benn andaar benn kilo boo xamee ne nii sahaaba yu jëkk yi dañ koo sarxe du ngeen leen mën a dab waaw ana ko mus a gis yonent bi bokkul ak yonent bi siècle bal mille ans la ñoo après yonent bi kooku nu mu mën a dabee sahaaba yi loolu munta nekk mboolem jaamu yàlla yi xeet bi jaamu yàlla dañ koy bindal yonent bi alayhi salaam ñoom ñoo jël njàngaleem ma ñoo ko jàngal doomu aadama yi mi ngi noonu borom boobu nag ni mooy ñi nga xam ne ba ñu ñëwee ne leen ah tiit leen waa Makka kat ñu ngi réplié wu pour ñëw loolee suñu borom mu ne loolu dolli leen ngëm na am ndax xamoon nañu ne li leen yàlla dig maadaam yéen a jël yoon ci ne da ngeen di doon ay jullit bëgg aljanna féeteeg yàlla natt bu ne dana leen dal moo tax keroog ba xasut ahzab ami ca déwén sa ñu ngi noonu ñun daal képp madina ci kaw ak ci suuf yépp lan la sahaaba yi waxoon haza ma waadana allahu wa rasul lii la ñuy yàlla ak yonentam digoon moo tax fii it biñ ne leen ne waa makka day ñi ngi bëgg a dellu si loolu dolli leen ngëm te it mbokk ngëm yàlla ngoo day yokku ci jublu gi nga jublu ci yàlla ci jaamu yàlla yi ngay def day wàññeeku ci sori gi nga sori ak jaamu yàlla sori gi nga sori lu baax ñu ne ñun day xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nañu ca mbokk yàlla doy nañu mooy kaddu julit mbokk julit du wax yàlla ak xanaa yàlla doyu la ah xanaa yàlla doyu la bu la yàlla doyul dox nga naan yàlla ak yàlla na la yàlla ak xanaa yàlla doyul bu neexee yàlla ak waaw xanaa bu neexee yàlla bu nekkul ak du du sotti xanaa yàlla doyul kon xasbuna allahu wa ni'mal wakil loolu la ibrahim alayhi salaam waxoon keroog bañ ko yeewee ba koo sànni ca sawara wa mu ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil sunu yaay Aïcha bañ ko yonent bi fàttee ca désert ba ba la cay xew-xew ca bés ki nga xam ne nii mooy suñu yaay Zeynab bintu Jaash laaj na ko waaw Aïcha bi nga ñëwee xool gisoo yonent bi lan nga wax mu ne dama ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil mu ne ko laqad qulti qawla al muminin loolu damay kaddu julit te mbokk julit ku la mën a menacer ci kaw suuf problème lu mu rëy rëy ci sa kanam nga la waay xamal ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil yaa ngi doyloo yàlla mi nga xam ne moo gën ci ku ñuy doyloo ca dara tewu ko mi ngi noonu bokk ne li ñu doon jàng léegi ci suuf واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ايو جوليت لولا جاخال جابال سي يالا خامني يالا موي سين بيتي تي مو گن سي كو خامني ني داني داني داني كاي فيتو ci lépp loo yaakaar ak lépp loo ragal moyal ci yàlla ni amal mawla wa ni amal wakil mi ngi noonu si ali
فانقلبوا بنعمة من مسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب
بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني فانقلبوا بنعمة من الله نون دي لصحابة يدبه تخيول قبوة يلا وفضل أكنجنيل يولين يلا جغليل لم يمسسهم سوء بن لور لا لولين wattaba'u ridwan allah ca topp nañ ngërëmal yàlla wallahu du fadlin azim ca borom yàlla day borom ngënil yu màgg la innama zalikum shaytan loolu day may wax jooju ma nga jóge ci shaytan yuxawifu awliyaahu ay yuxawifukum awliyaahu moo leen di ragalloo ay farandoom waaye fala taxaafuuhum wa xaafuuni bu leen ragal farandoy shaytan ragal leen ma man yàlla in kuntum muminin su dee nekk ngeen digam yow yonent bi nag wala yaxzunka alladina yusaari'una fi lkufr ba mu nekk jëlee tiis ñi nga xam ne ñi ngi jëkkante ci ak weddi innahum lan yadurru llaha shay'a ñoom day duñu mën a lor yàlla ci dara yuridu allahu alla yaj'ala lahum hazzan fi alaxira yàlla daa bëgg rek ngir bañ leen a bañ leen a jagleel benn cër ca alaxira walahum azabun azim te dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu màgg la inna alladina ishtaraw alkufra bil iman ña nga xam ne nii day dañoo jënd kéeféer ñu jënd ko seen ngëm nga lan yadurru llaha shay'a duñu lor yàlla ci dara walahum azabun alim te dana leen ñeel mbugal mu tar wala yaxsabanna alladina kafaru bu mu jort mukk ñi nga xam ne dañooy weddi annama numli lahum xayran li an xayrun li anfusihim ne bi ñu leen di bay bay lee day daa nekk yiw ñeel seen bakkan ya innama numli lahum ñi ngi nekk di leen muñal di leen xaare li yazdaadu isma ngiree ñu gën a yokku ci ay bakkaar walahum azabu muhin te dan leen ñeel bëggal moo xam ne mu leen di toroxal la mi ngi noonu mbokk yonent bi génn naa ci sahabaam te mooy ña nga xam ne ñoo àndoon ak moom démb ca Uhud ñu dem léegi yàlla mi dogal lu ko neex mu am kenn ci bannu Xuzaa di giir yu nekkoon ci Madina nga xam ne ay farandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ma soon a nekk kii nga xam ne nii al mabud al mubad al mabad al Xuzaa yi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quoi yu mi yàlla yónni man day li le dal démb tiis na ma lool wallaay bu démb doon na tey ñun daañ ñëw ànd ak yow xeex léegi nag lan laa mën a def ci sa diggante ak yéeféer yi mu ne ko ah xanaa nga dem soo demee daal loo leen mën a wax ba tiital leen loolee da ngay gis ne islaam loolee dana doon lu ñuy jëriñ te it mbokk yonent bi sa mu ne alxarbu xudaa ci wàllu guerre nga wax lu dul dëgg ba noot sab noon loolee da ngay gis ne ci technique de guerre la bokk mooy naxante guerre naxante la gis ngeen loolee ba mu amee Maabad nekkoon ku yeewu daal di dem dem bi génn ñëw ba abu fekk ñoom abu sufyaan yéefar yaa ngi campé mu romb leen abu sufyaan ne ko Maabad foo jóge mu ne ko maa ngi jóge Madina mu ne loo fa bàyyi mu ne ko ah la ma fa bàyyi day mooy muhammad mboolem ñu àndaloon démb réccu nañu mboolem góor gu mën a xeex ci madina génn nañu armée bi ma gis musuma gis armée bu mel noonu mu ne ko wax nga xay mu ne ko ah li ma leen di digal te ngeen dina bala ñu leen fekk fii abu sufyaan de gars yi kay leen daw nit bi comme gagné nañ ba pare loolu mbokk dañuy gis ne moom la moom lañ daw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sahabaam ñëw ñëw ba fi abu sufyaan ñoom campé woon fekk daw nañu ba dañ ne sax lenn ci seeni dund dañoo bañ mu diisal seeni gileem ba foofu lañ ko bàyyi daw dem seen yoon borom bi nag ne mi ngi nii daal di siggil sahaaba yi démb def nañ erreur bu grave daw nañ bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yàlla may leen ñu mën koo rattrapé ñoom ñëpp ñu dellu siwaat teg ko ànd ak yonent bi seeni noon daw noonu lañ ñibbi siwaatee madina ci xéewal gu leen yàlla defal ca mooy yoolu jihaad yàlla bindal leen ko ndax képp ku jóg ngir dara loolee ngant am ci yàlla dina la ko bindal yàlla it may leen ngëneel te mooy seen grade yooyee nga xam ne nii yàlla wàcce woon na ko ca daw gañ dawoon yonent bi alayhi salaam tey siggiwaat nañu ci kanam munafiq yëpp ci kanam waa Madina yëpp xam ne armée démb bi day ñoo dàq waa Makka ba nibbi nañu borom bi mu ne it benn lor dalu leen te it topp nañ la nga xam ne mooy ridwanullah donte ne démb def nañ erreur yu grave yàlla dal seen kaw ci aaya yu bëri amma liñ def tey mooy topp nañ ridwan allah ngërëmal yàlla loola tax koy wax ci ñoom ne radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen te loolu daf ñuy jàngal rek mbokk sëg dund mën ngaa def njuumte waaye ngalawaay njuumte boobee jéem koo rattrapé jéem koo rattrapé ci loo mën ci lu baax nga def ko suñu borom yàlla jalla wa ala nam la mere woon ci sa njuumte ga soo tuubee tuub gu sell dellu ci moom day wàcc ngërëmam ci gannaaw bam la mérite ba tax borom bi ne toppal nañu ridwan allah borom bi nag mu ne mooy borom gëneel yu màgg ya nga xam ne dana leen ko jagleel loolu taxit yàlla yëkkati na leen place boo xam ne kenn mënu leen a dab mi ngi noonu kenn mënu leen a dab mooy sahaaba yi àndoon yonent bi avant ñu ubbi mag kenn mënu leen a dab xattaa ñu ñëw gannaaw bu mënuñu leen a dab comme ni ñu ko waxee sànq léegi nag suñu borom mu ne loolee nga xam ne information yi ngeen jotoon nekkat waa Makka dajaloo nañ ñi ngi ñëw seen kaw loolu ci seytaane la jógee bëgg ngeen ragal ay farandoom te it mbokk képp kuy xeex l'islam yaa ngi xeex ci yoonu taaxuut allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah walazina kafaru yuqatiluna fi sabili taaxuut te mooy seytaane moom mooy xambu ay farandoom ngir ñu xeex diine yàlla kon bu leen leen ragal ragal leen ma man kese loolu tax ba mbokk jullit du ragal ku dul yàlla ay ragal ne am na ku la mën a lor ku la mën a alak yàlla rek la jullit di ragal suñu borom nee na mboolem njabarkat nit ak jinne buñ daje woon mënuñu laa lor illa bi iznillah loolee ngay war a gëm loolu nag mooy ragalu taraxlu jàpp ne am na koo xam ne ci kumpaam wala ci pexe mën na laa def dara bokkul ak ay ragal ki dafa ragal jaan ak dafa ragal jiit loolu moom beneen mbir la waaye daal jullit moom du ragal ku dul yàlla jàll wa ala su dee ne yéen gëm ngeen mi ngi noonu loolu tax ba ku ko mën a menacé lan lay wax xasbuna allah wa ni'mal wakil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di am métit lool ci mbokkam yi muy woo ci diina ñu bañ a wuy si mu wóor ko ne ku te dee sawara la jëm ñaareel bi it lu ne teg nañ ko ca deram ba wax ju ñaaw dune yéeféer yi ak naafiq yi teg nañ ko ci deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nag na ko loolu bu ci am benn tiis ñoo ñee di jëkkante ana ko gën a tar kéeféer la ñuy wax bu mu la tiis xamal ne it du ñu mën a lor yàlla dara ay du ñu mën a lor ci diine yàlla ji dara léegi nag suñu borom yàlla mi ngi bëgg ci ñu bañ a am benn cër te àllaaxira looloo tax mu seetaan leen ñu def la ñuy def di yokk la nga xam ne mooy seen xéewal gis nga moo tax daf ne hazan fil axira waaye da ngay gis seen àdduna moom yàlla day yokk seen i xéewal yokk seen i pexe borom bi nag ne pex mbugal mu màgg mi ngi leen di xaar te mbugal munta gën a màgg sawara mbokk jurit suñu borom ne ñooñu nga xam ni ngëm gañu waroon a am dañ koo jënde ak kéeféer duñu lor yàlla ci dara te mbugal mu tar mi ngi leen di xaar te it mbokk julit ñëw na ci hadisul qudsi suñu borom di wax ne ay yéen doomu aadama yi xam leen ne mun leen a yegg fu may lor ba may lor ay yéen doomu aadama yi bu doon yéen nit ak jinne yëpp da ngeen daje woon ci mbaaxu ki gën a baax ci yéen yokkul sama nguur gi dara su ngeen daje woon ci mbonu ki gën a bon ci yéen wàññul sama nguur gi dara mbokk yàlla kenn mënu koo lor ci dara fee waxoon na mbugal mu mag fii mu tëje ko mbugal mu tar mu metti mu amul fu mu yem gannaaw bi it suñu borom mu ne yow yonent bi yéeféer yi ma leen xëpp ci alal ak naafiq yi dama leen xëpp ci alal bul jàpp ne dama koo def ngir mu nekk yiw ñeel leen laa dama koo def ngir ñu am moyen gën a am ay bakkaar ca loolu bu ñëwee yomal qiyaama ñu leen ñu wax leen seen cër ci xiiwul yàlla jeexaleen ngeen koon ci àdduna azhabtum tayibaatikum fi xayaatikum dunia su ko defee lan mu leen fexaar mooy mbugal mu leen di toroxal maadaama la ëpp ci yéefe di naafiq yi rëy mooy tee ñu tapp ndigal yàlla suñ demee yomal qiyaama yàlla toroxal leen xoolal ñetti ay li ko yàlla tëje azabun azim azabun alim azabun muhin mbugal mu màgg lool mbugal mu tar lool mbugal mu leen di toroxal lool loolu moo tax ba soo yéenee yéeféer musiba ne ko yàlla na nga gudd fan ndax bis bu mu dund rek mbugal yaa ngay gën a tar bis bu mu dugg rek dund rek mbugal yaa ngay gën a tar ca àllaxira ni ngi noonu li yazdaadu isman ngir seen bakkaar yi gën a màgg yal na yàlla musalim ci ak kéeféer kon mi ngi noonu chian yi ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنه بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
بارك الله فيكم سني بارم جل وعلا مني ما كان الله دونك يلا مكو liyazara almuminina ala ma antum alayhi mu bàyyi julit ñi ci li nga xam ne nekk ngeen ca xatta yamiza alxabisa min altayib lu dul mu ràññetle la sobewu ca la tey ci yéen wa ma kaana allahu li yutliakum ala alxayb yàlla du nekk mukk di leen feeñalal ba ngeen di xam kumpa walakin allaha yajtabi min rusulihi man yasha waaye yàlla mooy tànn ci ay yonentam ña ko soob fa aminu billahi wa rusuli e waaye gëm leen yàlla ak yonentam wa in tu'minu wa tattaqu su dee da ngeen a gëm ca ragal yàlla day fa lakum ajrun azim dana leen ñeel pay boo xam ne bu màgg la wala yaxsabanna lazina yabxaluun e waaye bu mu jort mukk ña nga xam ne ña ngay naye bima aataahum allahu min fadli te la leen yàlla di dikk ci ay ngëneelam huwa xayran lahum buñ jàpp mukk ne yiw la ñeel leen bal huwa sharrun lahum la am kay mooy ay la ñeel leen sa yutawaquuna ma baxilu bihi yowma alqiyaama daañu leen teqal ay laxas ci seen baat ya la nga xam ne doon nañ ko naye yowma alqiyaama walillahi miraasu samawati wal ard dana ñeel yàlla lii di ndonoog asamaan yi ak suuf wallahu bima taamaluuna xabiir te yàlla day li ngeen di jëf ah, ku ca ñàkk kompole mi ngi noonu mbokk gis nañu xasatu uhud bokkoon na it lu ci suñu borom yàlla bëggoon mooy julit ñi woote ne ay julit lañu ñëpp xamante ci seen biir xamante seen biir moo tax mu ne yàlla mu ne du ma leen bàyyi ngeen mel ni ngeen mel lu dul ma ràññet li ñi sobewu ak ñi tey looloo tax ba gannaaw ghazwatu uhud bi mu amee naafiq yi cent pour cent yi moom xam nañu leen julit ñi xam ne seen ngëm dafa woyof xam nañu leen julit ñi nga xam ne seen ngëm dafa dëgër xam nañu leen loole mooy nattu boo xam ne yàlla subhanahu wa taala ah indi na ko gannaaw ba itamit doomu aadama bi heure boo xam ne dafay jóg ci mbir jihaat laan lu mën a doon lii di kumpa yàlla moo ko gardel boppam yàlla waxul mukk koy dem jihaat naa la dimbali sa warugar mooy demal nga jihaat defal say effort lu ci des mbiru yàlla la moo tax borom bi mu ne du ma leen xamal kumpa kumpa moom du ma leen ko xamal xanaa lu dul ko yàlla tànn def ko yonent dana koy wax suratul jinn aalimul xayb fala yuzhiru ala xaybihi ahada illa man irtada min rasulin gis ngeen waaye keneen koo xam ne du yonent mënul xam xaybu xaybu yàlla moo ko xam loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam nee na ci sol dàllam dem ci ab seetkat mu war mu koy xamal avenir am nee na kooku weddi na alquran ndax kooku yonent la du yonent lu tax ngay dem ci moom te yàlla mu ne moo xam kumpa du ko wax kenn kooku weddi na alquran loolu moo tax ba suñu borom nee na benn bakkan xamul looy liggéey suba wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan kooku lay seetal prog lan lay def suba xamu ko ndax day deem day xamu ko nu mu xamul programme boppam nu mu xamee sa programme yow loolu tax nga la waay julit moytu leen loolu moytu leen loolu rawatina suñu mbokk jigéen ñi da ngay gis tariyaax yooyu cent pour cent clients yi ñu am quatre-vingt-dix ay jigéen lañ suñu borom jalla wala moo bind doomu aadama xamul kumpa xamul lu koy jëriñ waaye moo ñu joxit beneen solution bu mu jaarale ci làmmiñ yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne yaa ngi ciy jublu di xool ndax lii baax na wala baaxul sëy booy dugg tukki booy dem examen booy def kër gooy bëgg a jënd lu mën a doon yonent bi alayhi salaam nee na da ngay julli ñaari rakka daa di ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la ñaan ci sa ngëneel yi di la dogalloo ci sa kattan gi yaa xam man xawma yàlla yow rek yaa man man munuma e waay yàlla sëy bii day su dee ne baax na ci sama wàllu diine ak sama wàllu àdduna yàlla nag ma ko yombalal barkeelal ma ko su dee ne baaxul sama wàllu diine ak sama wàllu àdduna yàlla nag ma ko soril ci indil ma loo xam ne moo ko gën ca barkeelal ma ko mbokk lii ngay wax sa diggante ak sa boroom gannaaw ba nga sukkandiku ci yàlla doyloo yàlla lu te yàlla dogal nga nangu loolu waaye dem sa moroomu nit rawatina da ngay gis koo xam ne nii ab pantre la ñëw lii fi ak pajaasam ah sol yére yu salte amul dara nga ñëw tuuru ci kawam dénk ko sa bopp mu jox la nga naan jox la nga sang jox la nga takku lii même bu ko diine terewul woon sa xel nanguwul loolu am déet moo tax ak bëri jigéen ñu ciy détourné di leen yóbbu ala kulli xaal xaybu yàlla moo ko moom ku ko neex ci ay yeneen tam la koy xamal léeg-léeg nag ay erreur di am mooy nga dem ci waa ji mu ne la yow day sa wayjur am na temps ci ay doom defal nga temps defal nga temps mbokk loolu la ñuy tuddee rëyban idasiya mooy rëy bu boo xam ni ñii xamuñu ko mais am nañu ko xam yow seytaane yi nga xam ne ñoo yàgg dëkk ak yow xam nañ sa yaay xam nañ ñaata doom lañ am tey jii masalan ñu ngi nekk fii ci biir jàkka ji li nga xam ne mooy xew ci terrain ak pes yi xamuñu ko mais nit mën na faa jóge léegi ne ah policiers yi dañ na nga fay xeex ak marchand ambulant yi am déet su boobaa ñun nekkoon na rëy bu ci ñoom mais nekkatul rëy bu ci ñun su ko defee ñaari façon rëy bu moo am rëy bu boo xamee ne nii yow xamoo ko waaye am nañu ko xam loolu kenn du ko tuddee rëy bu bi bi yàlla di wax li yàlla di wax kay mooy rëyban xaqiqiyan loo xam ne nii kumpa la loolu yàlla rek ko ko xam loolu tax àllaaxira la fay xew yàlla yonent yàlla rek am dara wax ko képp ko taxaw ne àllaaxira nangam dana fa xew te yonent bi waxu ko boo ko rusul ne ko waxoo dëgg mi ngi noonu ndax loolu dafa bokk ci kumpa yi yàlla subhanahu wa taala jago mi ngi noonu borom boobu jalla wa ala nag mu ne mooy tànn ci ay yonent ku ko neex yonent it ñu xam ne nit ku du góorgóorlu pour nekk yonent nomination la yàlla koy nemee ku ko neex doonte ne suñu borom mu ne wallahu aalamu haysu yajaalu risalata amul benn société lu dul ko yàllay tànn mooy ka nga xam ne moo gën a rafet xol moo gën a jub kooku la yàllay tànn def ko yonent mi ngi noonu ka ci mujjoon mooy suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent dootu ñëw gannaawam ba ila yumi diin moom it du ñëwaat di dundaat ak ñun di fa am ay njaboot ba ila yumi diin loolu moom da ngay xam ne dañ ko war a gëm suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala mu ne kon gëm leen di yàlla wax ci gëm li yonent yàlla wax weddi leneen lu safaanoo ak moom su dee ne gëm ngeen li yonent indi ragal yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem pay yu màgg mi ngi leen di xaar mbokk pay googu muy aljanna mooy yonent bi alei salaam nee na ña fa gën a tuuti le nguur mooy ñi nga xam ne nguur ak àdduna gi daañu am fukkam ñoom ñoo fa gën a tuuti le nguur kon pay gu màgg mi ngi leen di xaar amul fu mu yem ba faw xaalidina fiha abadan suñu borom bàyyi loolu daal di ñëw ca la nga xam ne mooy alal ji nga xam ne yàlla ko moom suñu borom mu ne ñi nga xam ne dañuy nay di bañ a joxe ci alali yàlla ji la leen ca yàlla jox ci ay ngëneelam yàlla way julit xamal ni wërsëg yàlla moo ko séddale ñee mu jox leen loo xam ne doyu leen ñee mu jox leen lu yem ci ñoom ñee mu jox leen lu ëpp bañ koy denc bokk na ci ñooñi nga xam ne jox na leen lu ëpp mooy faj nañu seeni soxla ba am lu ñu desal suñu borom mu ne na ngeen ci génne la nga xam ne mooy zakat masalan zakat boobee yàlla subhanahu wa taala yombal ko lool la ca gën a bari ci zakat mooy kiy bay ab toolam asamaan moo ko arrosé suñu borom mu ne xaaj ko fukki xaaj juróom-ñeenti yóbbul sa kër benn xaaj bi joxal ma ko fuqaraaw yi yow nga nay ne déedéet yàlla loolu du ma ko def mu am ku ko gën a grave ki yor xaalis bu muy utiliser or lam dollar lam CFA la denc ko ren ba déwén suñ borom na ko sëñ bi xaaj ko ñiin fukki xaaj trente neuf yëpp gardel yaa moom benn xaaj bi joxal ma ko faqir yi yow nga lànk bañ koo joxe mi ngi noonu maa ngi koy waxal sama mbokk bi cheikh hafizahullah muy wax ne gis nga ñu bëri ci nit ñi joxe petit zakat lu yomb la ci ñoom masalan waa ji am na un million nga ne ko ah un million de vingt cinq mille mooy zakat ah vingt cinq mille dama yëkkati vingt cinq mille joxe mais waa ji nga xam ne tey jii masalan dafa am quarante millions nga ne ko saa waay war ngaa génn un million de zakat na ah un million yaa ngi dégg borom milliard bi nag vingt cinq millions la war a génn ci zakat ki am un milliard Sénégal ñaati milliardaires fi nekk kenn mënu koo xam le milliardaire war na génn chaque année vingt cinq millions la war a génn zakat su ko defee bu xoolee ah vingt cinq millions mi ngi noonu fàtte ne à part les vingt cinq millions des na ko neuf cent soixante quinze millions am déet waaye la muy xool da ko génni loolu moo koy da da cay nay suñu borom yàlla nag mu ne loolee nga nay bañ koo génne day yowmal qiyaama dañ la koy caqal yonent bi alayhi salaam nee na jaan la ko yàlla di soppi ak gaa yi téereb yàlla bi yàlla jàngulu ñu yonent yàlla Muusa bu sànnee yetam mu nekk jaana ah kay mi ngi noonu sànni aw yatam mu daal di nekk jaan mu ne nag bu ëllëgee daal la woon dollar yi nga waroon a génne zakat CFA ba nga waroon a génne zakat ne la sëñ bi lii day mooy taux bi nga waroon génne zakat ñoo dam la furr soppi lu ko jaan daal di comme laxasu la yeneen nit ñi def ko ay feer di loolu la yàlla wax de mi ngi noonu di ko passé ci sa wet yi di ko passé sa gannaaw gi di ko passé ci sa dënn bi am riwaay yoo xam ne dañ naan buñ tegee fer bi ci dënn bi day génn ca gannaaw buñ ko tegee ci gannaaw mu génn ci ci ci dënn bi loolu la borom subhanahu wa taala wax ne daañu leen te daañu ko caqal te it da daañu leen te pesé lu waral loolu mooy xaalis bi xaalis bi yàlla la tool bi toolu bu yàlla la wërsëg wërsëgu yàlla la yàlla ne la jëlal la ci ëpp ëpp ëpp ëpp lu tuuti liy jël ko joxe ko ci yàlla tax nga lànk ne doo ko def suñu borom mu ne loolu moo lay xaar muy de un deuxièmement borom bi nee na loolu nga fi yor ci man lay mujjee ma gaa yi alal ji ñu yor tey jii katkat yi nekk ci mbedd mi immeuble yi nekk fii ñi ko moom fii ak cent ans anu fu ñu jëm tey jii képp ku ñu joxoon ne moom moom oto bee moom moom immeuble bi fii ak cent ans anam ñoom ñëpp yi ngi ci biir suuf n'est-ce pas adduna it noonu lay demee ñii di donnante donnante donnante ba mujj ñépp dee bàyyi fi lépp suñu borom mi alxani jël lépp def ko poussière waaw bu dee ne nag jamono bi nga koy gérer muy xéewalug yàlla defoo ca la neex yàlla loolu boo dajeeg sa borom lay def borom bi nag jalla wa ala tëje ko ne wallahu bi ma taamaluna xabir yàlla day ci li ngeen di jëf ku ko ku ko xam la muy dalal xolu julit bi te mooy wërsëg bi ko yàlla wërsëgal lépp lum cay jël di ko def te yàlla tax bu ko soxnaam yi yëgul ay frère am yëguñu ko ay dëkkanam yëguñu ko it moom digganteem ak boroomam day am xel mu dal ni yàlla day xam ne ni kii mi nga may sant ci xéewal yi ma ko xéewalal waaye itamit mu nekk ab tëkku képp koo xamee ni nii yaa ngi def xamal ne yàlla nga amal affaire ndax it bari na ay ñoo xam ne dañuy dañuy naxaate masalan yow tu es un milliardaire war a génne tant de millions léegi nag ay xew-xew am nga dem jox ki masamba un million jox ki ay saako ceeb jënd fi ay nangam nangam fekk la nga jox ci zakat matul sax sa dixième mu zakat mbokk loolu yàlla lay réglé yowmal qiyaama de loolu moo tax ba képp koy def lu baax xamal ne allahu xabir képp koo xam ne da nga de da ngay nekk def lu bon xamal ne allahu xabir loolu nag mooy grade bi gën a kawee koo xam ne képp ku ko xam di ko bàyyi xel dana la sawarloo ci def lu baax bàyyi lu bon ñu ngi ñaan suñu borom al alimul xabir yal nañu dëppale ak ngërëmam adduna ak alaxira yal nañu féewale ak meram adduna ak alaxira yal nañu may àjjana mu nekk suñu wàccuwaay defal ko waajur ak njaboot ga ak bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain li suñu borom jalla wa ala di wax ne walazina fi amwalihim xaqun maalum lisaa'il wal mahrum loolu mi ngi wàcc ci suratul ma'arij bokk na li borom xam-xam yi di wax zakat dafa am ñaari étape étape boo xam ne suñu borom dafa ñaax jullit ñi ci ne seen alal day leen ci jël di joxe waaye ne kenn wutalu ko woon ay nisaab bu mu war a yem loolu tax suñu borom ne ña nga xam ne ñoo am texe mooy ñi nga xam ne seen alal am na ca àq bu ñu xam moo tax borom tudd ko xaq xaqun maalum ñeel ña leen di ñaan si ak ña nga xam ne dañoo ñàkk te ñaan ñu leen loolu bokkul ak zakat bi yàlla mu jëfaratal ci madina àq la boo xam dañ ko doon jël ci jaax joxe ba boo demee ci borom xam-xam yi sax dañu naan ndax am na beneen àq bu war jurit ci alalam gannaaw zakat lu bari ci ñoom dañ naan no am génn nga sa zakat ba pare sa mbokkum julite ngi nii nekk ci masalan diggante dund ak dee ci wàllu faju yaakaarul ku dul yow àq la nga dimbali ko sa mbokk julite ngi nii amul lu mu lekk àq la nga dimbali ko kon lañ daan joxe ca makka loolee kenn tënku ko woon yàlla da ko bàyyi doon jurit bi rek amma bañ demee ba madina nag la yàlla doogo tëral nag ci lammiñu yonente bi alei salatu wasalaam ku am alal ni ngi koy génnee ku am tool ni ngi koy génnee ku am jur ni ngi koy génnee wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal bokk na liñ doon wax moo di ne ne lañ tontu woon ku jëkk ka rek ci wàllu këyit yi nga xam ne tubaab yi dañ koo tëral ci suñu diggante ak ñoom ñëw nañ fi traite négrière pendant des siècles di yeew suñu maam yi di leen jaay jaayin bu gën a bon xale yi dem gore xam nañ ci dara gannaaw ba ñu indi fi leur seen guerre yi ñu guerre 39 45 sun maam yi daan daw de làqu ci àll bi ñu leen di ramasser di yóbbu ba Cheikh Anta Diop am na benn téere bu ñu ci bind fàtte naa titre bi day wax ne en Afrique gënoon na peuplé sax daanaka 50 ans après bi mu bind livre bi par rapport ak nam meroon bu njëkk ci tubaab yi nañ daan def du buub suñu maam yi di yóbbu tey nag bañ demee ba soxlaatuñ ñu ñu tëj seen i frontière donte na ñoom seen i doom nu mu leen neex lañu fi ñëwee loolu la ñu waxoon ne xale bi pexe yi muy def ba am ay këyitam ba mën a dem dem boo xam ne bu demee du sàcc du wor waaye day daan dooleem daal di ñaq indi loolee duñ ko ko tere amma nag ndax góor dem taxaw na man góor jigéen la pour ñu may may kayit ndax loolu laa mbokk loolu lu xaram la loolu lu xaram la doomu aadama taxaw naan man góor jigéen la wala ay nangam nangam sabata njaay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw waaw xadir moo ngi doon wax loo xam ne nii kumpa la ci Moussa te xadir nuñ koy waxee Moussa moo nekkoon yonent bi xadir li mu doon wax du du kumpa boo xam ne nii kumpa bu boy la gaal ga lu mu wax mu ne gaal ga màkk bët ndax dafa am buur buy ñëw ci géej gi day jël gaal yi xabir xamoon na loolu ne buur bi am na inspection yi ñuy def xale boobee xale bu bon la ñëpp dëkk yëpp seede ko moo tax mu ne fa aradana mi ngi noonu la nga xamee ne nii mooy la ñu jël denc ko bàyyi ba ko dencoon loolee di génn na kumpa ba ñëw ci doomu aadama yi moom la ñu tuddee xayban idafiya mooy génn na kumpa mutlaq bàyyi baa ko fi dencoon pour ay doomam buñ màggee suñu borom yàlla xamal ko xadir mu def loolu yeneen ti yooyu xamuñu kumpa lu dul la leen ci yàlla xamal loolu la leen ci yàlla xamal du ab yonent boo xam kumpa mutlaq moo tax Moussa yàlla xamal na ko lenn ci loo xam ne ni ay secret la yoo xam ne xadir xam na ko te xamuñu ko te moom xamu ko yu mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nit daana ñëw xabaare ko xabaar yoo xam ne moom xamu ko woon léegi lañ ko wax ci biir tafsir bi fa mu nekk ca Madina am na ko ñëw ne ko waa màkkakat ñu ngi waaj di ñëw moom xamu ko woon yaa ngi dégg kon loolee teqalewul ak la nga xam ne suñu borom yàlla wax na ko wallahu subhanahu wa taala aalam waaw ala kulli xaal dañ naan ñëpp gëmuñu ko rek mais fi lillahi alhamdu am na ñoo xam ne nii ba tey lu àdduna yàqu-yàqu am na ñoo xam ne nii duñu bokkaale ak yàlla kenn ñaareel bit zakar boobu am na ñu koy génnee te yit yit jullit yi day gëm ne zakar boo ko génnee ci alal alal ji day gën a barkeel mooy lépp alal bu ñu barkeel mooy ëpp valeur alal bu ñu zakkaatal moo ëpp valeur alal bu ñu zakkaatul te barke ak barkeel bokkul wallahi sunu maam yi ji jiitu Dakar daan liggéey sone sa Senelec di Gaspésie salaire yoo xam ne yéen yoroon ni mu tuutee daanañ ci tabax këru Dakar jàppale ci waa Fouta tey dañuy gis des cadres yuy gagné un million cinq cent mille ci luwaas la ñuy dee lu tax mooy barke ak barkeel bokkul kon alal heure boo ko génnee zakat rek gëmal na yàlla da koy barkeel naam xam naa ñu mujjee ci mbokk bi rek ngeen jéggal ñu ci des waaw bisimilah waaw waaw waaw waaw waaw ñetti taay yëpp day valable ñetti taay yëpp day valable bokk na loo xamee ne nii dafay lënt doomu aadama yi mooy julli ñaari taay la am kon bu ñe taayee ñetti taaya day yokk julli gi benn taaya waaye loolu tardé gi mu tardé moo ko ko yóbbee li la koy woon rek tey boo ñëwoon dernier rakka fekk imam rokkoo na ba siggi di da ngay ànd ak moom ci ñaari sujud yi ànd ak ñaari sujud yi d' accord bu imam pare du ñetti rakka ngay julli day waaw ñetti rakka yi boo ko jullee ni muy demee moo dina julli timis mi ngi waroon a am six mi ngi waroon a am ñaata six sujud mais yow sujud nga huit sujud lu waral loolu bu doon julli tisbaara yaa ngi waroon a sujud huit sujud mais da nga sujud dix sujud lu waral loolu ma imam moo la ci yóbbu loolu it moo tax ba ñetti taay yooyu imam moo la ci yóbbaale moo tax nga koy nga koy def waaw xam naa nuñ koy waxee waaw ñu bàyyi mbokk bi beneen ñu dajewaat fi incha allah am na am na mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci daarul istiqaama ci docteur Mouhamed Lo dafa am benn daje bu am solo bu ñuy wootee dimanche bii di ñëw incha allah nga xam ne dañ caa invité des médecins ak ay ñu seen xam-xam màcc ci wàllu justice mooy ni ñuy mën a def ba sellal jukkoy xale yi nekk ci réew mi xam naa ñu ngi ñaan képp koo xam ne nii yàlla may na ko pexe mu dem fekki ko loolee ngir yàlla def ñu defal ci jàmm mooy kon mi ngi noonu ñu ngi ñaan suñu borom jàll wa ala liñ jot a wax fii lépp lu ci jub yal na yàlla barkeel ko wërsëgal ñu jëfe ko tam nangu ko lu ci njumte it yal na yàlla jéggal ñu ko te wërsëgal ñu topp dëgg wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain